dal leen jàmm mbokk yi internet yi ñuy ci xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo lu ñeel nag lycée Limamou Laye tey jii nag ñuy gis ay vidéo yoo xamante ni mu ngi tukkee foofale ci lycée ba niki élèves yi ak surveillant bi kenn ku ne yor saw yaat di dóorante ti mbir mu doy moo xamante bi lu ne mënoon na caa jot a xewee niki noonu nag kenn xamagul li nga xamante ne bi moom lañu jote diggante ñaar ñooñee niki surveillant bi ak li nga xamante ne bi mooy élèves yi jànge la ca lycée Limamou Laye te bu ñu fàttalikoo nag ci ginnaaw tuuti rek waxoon na ni mbir mu doy waar moom it xewoon na fa foofee ca lycée Limamou Laye benn jigéen bu àndoon nag benn doomam ñoo ñëwoon foofale ca lycée ba di di tëkku ñi nga xamante ne bi ñoo nekkoon foofale yore wàllum njàngale ma ca lycée Limamou Laye tey nag lenn ci élèves yi ñoo fippu génn yor seen yàtt di wëtal ki nga xamante ne bi mooy surveillant bi waaye moom it bàyyiwu leen ci benn yoon ndaxte moom it mi ngi yoroon aw yatam di leen wëtalaale di dóorante ak ñoom di mbir mu doy moo xamante ne bi mënoon naa mujje ji fu nekk loolu nag xëy na enquête bi mu ngi ci loxoy yoon bees xam li nga xamante ne bi moom lan jote ci diggante ñaari wàllu goo gële